soxal euh, JDN bi muy euh, JND yi muy journée euh, du dialogue nationale muy journée boo xamante ne bi juróomi fan la ñu daal di koy tënk rek lépp loo xamante ne bi waxtaanee nañ ci ñu daal di koy jébbal bu Sénégal Bassirou Diomaye fay moom sax ba Bassirou Diomaye moo daal di initier euh, bi les journées nationales donc muy loo xamante ne bi daanaka euh, nemmeeku ngeen ko waxtaan wi donc daanaka dañoo nekk ci pose jamono ji lép loo xamante ne bi ay proposition la jëm ci wàllu réforme bi xool naka la ñu mën a def ngir mën ne indiwaat ay copperndi ci wàllu ko yoon bu réewum Sénégal wante it ci naka lañ koy def rek mu gën a méngoo ak jamono ndaxte xam ngeen ko euh, justice nekk na loo xamante ne bi tey dafay doxal réew justice nekk na mbir moo xamante ne bi tey bu salfaa ñëw rek réew mi dafay mujj daal di tagga donc loolu tey moo nekk li nga xamante ne bi donc moom mooy l'initiative euh, de cette euh, journée euh, de dialogue national donc le président de la République Bassirou Diomaye Faye fas yéene ko ànd ak ñi nga xamante ne bi rek ñoo di askanu Sénégal ngir proposer leen ko xam ngeen ko nag ci laataa ñuy lancer sax bés bi nga xamante ne bi rek moom mooy journée dialogue national bi am na benn journée boo xamante ne bi amaloon nañu ko muy lancement benn plateforme jubbanti nekk loo xamante ne bi tey dafay permettre sénégalais ñu daal di mën a xamante ne bii rek moo soxal naka la yoon di doxee ci réew mi donc nekk loo xamante ne tey gis ngeen ko ay réaction yu bëree bëri te itam bépp réaction boo xamante ne rek euh, euh, euh, ba ñu defee ay jàngat ba li nga xamante ne bii rek moo soxal commission yi ñu ubbi woon dem ci doon jéem waxtaan durant une semaine juróomi fan yoo xamante ne bii rek waxtaan nañ ci ba noppi tey jii nag moo fas yéene doon bis bu ñu koy daal di buur bu ko defee lépp luñ ci jëlee comme conclusion maanaam tënk li ñu daal di koy jébbal njiitum réew mi moom Bassirou Diomaye Faye bu defee rek ñu daal di xool naka la koy mën a euh, yaatalee ba mu a yaatu bu ko defee rek yoon nekk loo xamante ne bi rek day gën a am indépendance day gën a moom boppam bu ko defee askanuk Sénégal liñ doon ñaawlu ci wàllu yoon ni muy doxee daanaka ñu mën cee indi ab jubbanti donc sànq rek ci biir waxtaan wi dëgg ngeen ay euh, proposition wala itam ay réaction yoo xamante ne bi rek am na ci rawatina ñi nga xamante ne bi rek ñoo jël kàddu sànq di ay rapporteur ci commission yi donc wax nañu ci lu soxal rek sénégalais yi ñu bëri si ñoom nekk na ñoo xamante ne bii soixante-quinze pour cent comme niñ ko mënee lim ñoom am nañu ay. wante it lu ëpp 40 pour cent ñoo xamante ne bii daanaka ànduñu ci ni yoon di doxee ak lu néew loo xamante ne bi rek ñoom ñoo am gis-gis bu rafet ci ne bi noonu la yoon di doxee ci diwaanu Sénégal ak yeneen yoo xamante ne bi daanaka rek exposé nañu ko ci euh, fi nga xamante ne bi rek moom mooy euh, pupitre bi bu ko defee ñu daal di a yaatal ndaxte xam ngeen ko sax na lu ñu waxtaanee ay ati at ci diwaanu Sénégal les conditions de détention les durées yi nga xamante ne bi dafay am euh, ci prison yi maanaam les ñi nga xam dañu leen mettre en garde à lu yàgg lool te itam duñu leen attee muy loo xamante ne bi tey ñoom ñëpp daanaka waxtaanee ci nu mu gën a yaato léegi-léegi rek bu ñu euh, noppee ci pause bi euh, quelques minutes ñu daal di ñëw reprendre li nga xamante ne bi rek moo di travaux bu ko defee ci kanam tuuti incha allahu rabbi ñu daal di fi ñëw ànd ak yéen ci li nga xamante ne bi rek moom lañ fi tënk ci assise de la justice fii ci diwaanu Diamniadio rajo Leral 96.1 Dakar 100.4 Kaolack 87.8 Mbacké Touba 93.1 Ziguinchor rajo Leral encore plus proche de l'info